lii ma leen indil tey nag ñi ma ko gën a yéene mooy ñin liggéey ba jàpp leen ñu tëdd seenub lal képp ko am mbokk mu feebar nga yóbbu ko hôpital ba sonn ñu bindal la ordinance ba sonn nga def lu ne tënewut jëlal lii ñi ma ko gën a yéene ñëpp mën nañ koo jariñoo nag ñi dara dalutoo ak ñi dara dal waaye ñi tëdd ci lal yi nan jot sama sama sa sa sama vidéo bi ñi tëdd ci lal yi te mënuñoo jóg nan jot sama vidéo bi képp koo xamante ni jot na ko def ko dana jóg képp nag koo xamante ni dem na ñi li ma gën a bëgg sax ñi tëdd ci lalu hôpital nañ leen ko bindal nañ leen ko bindal jox leen ko képp koo xamante ni te càngat bi yëggut sonliwut ñetti fan nga koy sangoo wér pelek ci la dal ak loola lu mën a nekk ci sa yaram day dañ bu doon dogal ak suñu borom sax day ciy dañ ndax suñu borom moo ne ñaan leen ma ma may leen. adduhaa silaaxul mu'min jullit ñaan mooy gal mooy ngànnaayam kon képp koo xamante ni feebar nga ba tëdd wala képp koo xamante ni sa yaram yaa ngi ciy yëg loo xam ne naka su dul noonu wala képp koo xam ne liggéey nañ la ba jàppale bindal lii ma lay bëgg wax ana lan ngay bind falamma jaa ash-shaharatu lahum muusa maa jextum bihi ash inna allaha sayubtiluhu inna allaha laa yuslihu xamalal mufsidin ñaata yoon nga koy bind 508 jëlal lim bi bu baax jàpp leen baat bi moo nekk noonu sax di daw ci écran bi ngeen koy gis falamma jaa ash-shaharatu qaala lahum muusa maa jextum bihi ash-sha'ru inna allaha sayyitu lahu inna allaha laa yuslihu xamalal mufsidin xamalal mufsidin lu liggéey bi bon bon bon doontan laa sànni kort dan laa yóbbu ci ci ci ci ci ci mooy xërëm yi bon yooyu donte dan laa yóbbu ci ci ci ci jalañ mooy ñi nga xamante ne gëmuñ yàlla yi ñu jëfandikoo defal lii ku mu mën a doon soo ko defee jóg ñett fan laa la may nga jóg ana lan nga koy boole suufu su xorondom da dem wuti suuf su xorondom nga boole ko moom heure booy sangu nga naan ñetti góox sangu suba sangu ngoon def ko ñett fan nga xool wallaahi la asiim ku ko def jóg billaahi wal quraan asiim